ndaysaan mu mel ni yàgg maar waa Lamsaar a ni mais nag dañuy bëre mais nag yaakaar naa ne bëre bi moom mais nag comme niñ ko xamee rek daal balaa ñuy wax dara dañ leen di jaale ki nga xam ne mooy Fodé nekkoon góor yàlla nekkoon baay Fall nekkoon waaju baax ñun ñu xamoon ko bu baax a baax ñu gisoon ngeen di partager ak moom lépp mais nag yàlla moom moo ne kullu nafsin saay xatin mawtin ñi dee ñàkkuñu fulla ñi fi des fayda bàyyiwu leen fi maama maa ngi lay wax sigil ndigal li ñu bokk ndax loolu yéen ak Sénégal yëpp a ko bokk dëgg la dëgg la ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli si yonentam bu tedd bi di gërëm suñuy waajur bu baax a baax di sant suñu sëriñ suñu Abdourahmane Mbacke yàlla na yàlla yokki leeram di nuyu Baye Karim Mbacke Fallou bu baax a baax ak sëriñ Sidi Mbacke alxuraan ñi nga xam ne mooy borom jàmm gën mooy borom Siga Mbaaw dëgg la foo dem na dem na de mais wét nañ trop wét nañ trop métti nañu trop trop waaye li ñuy wax rek jaam ak pexem yàlla ak dogalam yàlla mi ñu ko joxoon moom mi ko jëlaat moo xam lim mu ci moom te ñu ngi koy yàlla suñu borom xaare ko aljana firdaws yu kawe ndax kenn la koo xamante ni amul wenn len lem lu yàqal fii ci àdduna waaw mais nag di ko ñaanal yàlla sunu borom xaare ko aljana moo képp ku mu fekk ak Omar Ndour suñu benn xarit militaire tamit dafa wàññeeku waaw lii daal suñu borom moo ko señ suñu borom moo ko señ moo tax ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax yee di ko ñaanal yàlla suñu borom xaare ko àjjana encore une fois di ko jaale àdduna ñëpp ñëp di ko jaale tarkindaa yeeg Siteu xam nga gars yëpp ñu leen koy jaale parce que métti na trop xam nga mais muñ moo ci des waa ñu muñ nag ñu ngi muñ. Euh, bi nga yëgee nouvelle boobu loolu maama noo ko accueillir rek la. waaw métti woon na nag ñu ko yégee métti woon na trop te gëmuñu ko woon aussi tamit waaw man Fodé dem na ba léegi teg ma ko bët dem na denc nañ ko suul nañ ko ñaanal nañ ko ba man gisatuma ak koo xamante maar xam nga kon lii metti na mais mama maama maama wuyu jooy yow tamit bul jooy ñaan yàlla rek wuyu ma maama maama maama wuyu ma non wuyu ma si café gi rek yàlla baax xanaa ñu euh, ñu gën ko ñaanal rek di la wax ne lii moom dogal suñ borom la daal dogal suñ borom la parce que tamit nit koy àndal keroog sa ko fekk jël naa ko fi sax ndeysaan. waaw ah, lool moom ci marge rek mooy li ngay li ngay gis ñu nekk chaque jour loolu rek moom moo ci manqué te mënuma tëdd tëdd tëdd tëdd ba duma mën a xalaat lool ñoo doon fanaan ci benn néeg mais sant yàlla rek Babacar du yàlla xam doy sant yàlla rek. yëpp ñu wax. bu laal bu laal tey ñëw ngeen bëre si mais ñun dañuy ñëw tey pour jaale leen parce que Mama wax na ba ay rongo ñoom génn seen digganteeg Fodé. waaw dañ leen di delloo njaal mi rek ndax Fodé moom Fodé ñëpp la. di di sant ñëpp taxawaay bi rafet na. di ko jaale ay mbokkam di ko jaale àdduna surtout ma jàmm gën yee ndax Fodé kenn la woon si ñun koo xamante ne bu ñuy wax fi mu fi ñu maanaam bu ñuy wax fi mënuñu wax fi mu toll si ñun yee noonu la demee nag fi mu toll si ñun mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko wax si gémmiñ si làmmiñ ba tax dañ koy ñaanal rek fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee yàlla rëcc lu mu doon def fii ci kaw suuf soobe yàlla te am nañ ci yaakaar bu baax a baax. Thiatou Fora parce que moom seetaan naa benn vidéo ndeysaan bërki dem rek muy wax ci yow lu rafet tamit mu mel ni doy na waar daal. waaw moom li muy wax ci man ci moom la ne ndax gis nga nit muy xale muy mag loo ko jox rek loola lay delloo Fodé billaay walaay taalaay moo ñu mag moo mag man mais gars yi ñoo ko mag. mais gentleman la nekk na responsable ay kilifa goo xamante ne lu wax gars yi def ko Fodé xoolal bu booy mànkoo woon def dara moo mu ñëw ne noonu ñun ñëpp ñu fekk si ko ci noonu yàlla moo ko defoon suñu biir mu nekk nit boo xamante ne. nit bu ñu doon dimbali la di ñu soutenir di nekk si ñun guddi ak bëccëg suba ak ngoon barki maam Serap Fall dañ koy ñaanal yàlla na xippee arjana firdawsi xam nga nitu ajana la ndax nitu ajana mooy nekk nit boo xamante ne fu nit ñi nekk rek day bëggee ka foore xaalisam du ko boole kenn mu ne góor yàlla suñuy làmb lu ne lay daj ma day fanaan sama gaale barki maam Serap Fall ma koy ñaanal yàlla ko yàlla yërëm te yéexee ñu ñu yàgg koo ko kooku Baye la fu mu nekk noonu non xam nga nu mu demee mais ko gënal fuuf fii parce que nitu yàlla la quoi loolu may wax nag xam naa yow mënoo comprendre loolu mais après mun naa la cee développé loo xamante ne yow di nga sib billaay ma loolu yaan maa ngi lay ziar yow di la wax sigil ndigaale parce que Fodé bu lamsaar la ñu wax Fodé yéen nag seen digganteeg Fodé waaw sant yàlla bu baax rek di wax alhamdulilah métti na trop nag ndax dee ndaw dama métti di ko jaalay lamsaar tabal coaan jàmm gën si kambaaw ñëpp daal mun naa ne moon lañ koy jaale ndax ku xam rek si ginnaaw si nag xamoon ak sama ginnaaw rakk yii tey jii nii nekk loo xam te ne yéem na métti na ñu bëri nag wax dëgg yàlla waaye nag bu yàlla bëggee ku bëgg nag ay ñàkk loolu lay demee kon lu ñu desul lu ñu ñaanal ko rek yàlla fi mu fi mu nii gënal ko fa mu jëm leen saara bi saara bi nekkoril maa ngi lay ziar tamit di lay wax sigil ndigaale sigil sa àll ga baax a baax a baax waaw ñu wax ci Fodé moom boo bariwul Fodé foo gis foo gisoon ba ñëm ngeen njëkk gis parce que moom borom baax la borom baax la boo amee combat da koy boo amee combat da ciy taxaw boo amee combat da ciy nekk kon instant yi nag ñu ngi jaale waa jàmm gën bu baax a baax di leen jaale bu baax di ñaanal Fodé yàlla na ko yàlla xare àjjana bu baax baax parce que kooku kooku borom baax la yi moo tax combat bi nee naa abo nu mu mënti demee moom fexeel am ndam boo amee ndam may ko Fodé rek parce que euh, liggéeyal nañu lu ko lu ne quoi liggéeyal nañu lu ne waaw ok jërëjëf ok merci beaucoup ñu di la jaale parce que Fodé ku ko la jaare ñëpp a ko yëg ñëpp a yëg euh, gaañu xale boobu man suma xarit la woon su ma saa ñëw entraînement du toog ci morom yi sama ñëw sama wet lay ñëw toog tellement xale sax dañ ma koy tooñee léeg-léeg ñoo père Fodé ngi ñëw suma xarit la woon yal na ko yàlla xaral jànna parce que alalam du ko fekkee te su jaay bakkan jotee mu xeex kenn du laal xale yi moo waral ñëpp yëgandoo gaañoom gi yal na ko yàlla xaral jànna yal na yeggalee euh, ndawam aljanna jërëjëf père Babacar kontaan naa ci yow. waaye dinaa la laaj lenn li am gàmm yi barki démb ci histoire làmb noo ko gisee ci biir combat bu wulli liiru jaan ak ci diggante xoyantaan ak Baye Mandione. ah arbitre dañoo juum ci wulli ak liiru jaan. ñu ci juume dañoo dañoo juum ndax ah, ni ñu arbitré awul yoon ndax même doon daa door arbitre dañ ko war a jox avertissement rek. Euh, ki ne euh, daa di xool nan la demee mais door ar bi rek war tax ñu jox la defet dañoo juum waaw. ndax ndax am na nooy doore ar bi dañ lay jox cinq avertissement ba avertissement yi mat lu la sanctionné ñu dugg laa disqualifié te boo xoolee image yi day mel ni liiru moo doon dóori daanu kon arbitrage bi awul yoon dañoo juum waaw. boo ñëwee ci Baye Mandione ak ki nga xam ne moo di xooyantaan xoyantaan. ma Mandione même bu fekkoon ne am na ñu we événement bu toll noonu te bokku leen dëkk. wóoluwu leen yeen waru ñoo yàq événement bi daa loo xam ne da ngay teg fee règlement andi expérience pour sauver bés bu toll noonu bés boo xam ne président de la république bu Gambie dugal na ci loxoom yebal ay ministre am dagg ay wee war ta yàq boobu événement dañoo xamul. kon su ma la déggee Gambien yi seen taxawaay ci combat moo desee mat arbitre yi bokk. na fii lañ leen formé mais nañ ñëw gën a des na arbitrage bi des na lu bëree bëri nañ gën a jàngaat règlement événement bu toll noonu kenn waru koo yàq ci ay dagg wee déedéet. Uh-huh. Ah, su su ma la laajee tamit tey parce que dañu gis ku mel ni promoteur bi muy jamaïcain muy xale mais mu mel ni moom tamit li mu doon def réussir na ko ci côté organisation ak mbooloo mu ko wuyu si. dañ koy ñaanal rek ndax xale bu am ambition la ku gëm li muy def la ku gëm boppam la événement bu mel ni du hasard mu réussir ko dañ koy ñaanal ndax mi ngi waajal làmb ju mag fii dañ koy ñaanal mu yeggale ndax nag réew mi soxna xale yu mel noonu Babacar. mais père kontaan naa ci yow. jërëjëf yow sama fils nga ñoo far ñoo far ma ak yow jaajëf <laughs>